ñu ngi rafetlu programme bu am fay fii ci Koupantoum ci festival uh, pencum ñaani parce que wax dëgg yàlla dañoo toogoon rek noppi. jamono bi di dog te ñun ñu am ay culture yu fort culture yu am valeur te ñu bàyyoon ko mu tedd waaye bi ñu créé festival euh, departementale di Ñaani gis nañ ne wax dëgg yàlla li fi amoon lu waroon a feeñ la awaatey mais amaan na ci jamono bi la ko yàlla dogal mais programme festival bi moom wax dëgg yàlla rafetlu lañ ko bu baax gis nañ ci suñu bopp bu baax du différence keet yi fi nekk parce que boo xoolee daaw quatrième festival bi ñu ngi ko jagleeloon indi euh, Mandeng ñu jàngat ci ay jàngat yu bari Mandeng nekk euh, ethnie bu nga xam ne ñoom ñoo euh, sànca département bi mais après biñ sàncee département bi poliha boobu bi ñoo ñëw fekk leen fii mu nekkoon àll bu lëndëm bari ay rab ay gaynde ay ñay lépp ñu toog fii di xeex ak moom ba mu mën a nekk ay dëkk ñu dëkk fii dëkkuwaay bu rafet diggante euh, soose yi ak ak euh, polo haaboobe yi mais itam ñu am ay jaar-jaar yu riis yu nga xam ne tey bu ñu ko càmbaree binda ko dana nekk lu nga xam ne bu ko sénégalais yi jàngee suñu doom yi ak suñu seet yi ak suñu seta setaat yi day nekk voleur bu nga xam ne wax dëgg yàlla dana jëmale réew mi kanam te ñu ngi lancé it appel population bi yëpp nañ gën a jàppa ci parce que département bi bi muy organiser festival bi nekkoon na festival nekkatul festival département Koupantoum mais festival dans le mond parce que tey yeneen euh, réew participer nañ ñu bàyyi ko ci sous-région yi waa congolais ñu ngi fi waa Gambie ñu ngi fi te jàpp naa ne année prochaine yeneen pays dina ñëw participer te de mën na dem ba nga xam ne dina laal cinq continents yu nekk ci monde bi yëpp dina ñëw di participer ci ci festival département Koupantoum parce que loo am importance la.